xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan istikhama point comme ñu ngi leen di nuyu di leen jaar tey fukki fan ak juróom ci weeru koor wi ñu ñëw nag fii ci tey ji jumaa ju mag ji ngir ànd ak yéen ci spécial reportage boo xam ne ni ñu ngi koy ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma di bi nga xam ne nii lépp lu jëm ci saytu ak toppatoo ak taxawu jumaa ji ñoom ñoo ko yore ba ci jëf yu am solo yi nga xam ne ni ñu ngi koy jëf muy taxaw ndogo yi kon duñ def lu dut ànd ak ki nga xam ne nii mooy jëwriñu daayira bi muy Serigne Abdoulaye Diop mu dikk ak ñun ci ay leeral ci liggéey bi naka lay nos salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci àddina bi tey nag ñu ngi fii ci jumaay Touba ngir waxtaane liggéey bii nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di def ci biir koor gi te muy liggéey bu am solo boo xam ne ñi ngi ko tàmbali woon depuis atum 2006 ci ndigalul Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu ci soppi mu dëkk bi waaye soppi xarkanamu jumaa ji ci biir weeru koor wi ba fépp fu waay mën a jóge boo ñëwee ci biir jumaa ji liy dundal koor nga mën ko fee fekk te liy dundal koor weesuwul ñaar yi muy jataay yi xam-xam ak xéewal yi nga xam ne moom la ñuy ndogoo daayira Moukhaddamatoul ma nag ci loolu lay taxaw depuis atum 2006 ba ren jii nga xam ne ci la ñu nekk muy atum 2018 euh, euh, liggéey bi nag yaatu na ay ñaari pàcc la muy jataay xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy àndee gunge weeru koor wi di ay thèmes conférence ak ay fatwa ak ay durus yoo xam ne dañ fiy jàng ak di jàngale te lépp li ni ma ko waxee léegi jubluwuñ ci lu dul dundal weer wi tànn ay thèmes yoo xam ne tem thème d'actualité la waaye itam wut ay borom xam-xam yoo xam ne danañu mën a ànd ak ñun ci thèmes yooyu mën koo traité ni mu waree euh, te benn jafe-jafe du ci am muy waxtaan nañ fi ci tem yooyu l'islam ak politique waxtaan nañ fi lu mel ne euh, justice nan la war a doxee ci lislaam ak euh, yan jeexital la mën a am ci askan wi waxtaan nañ fi lu aju ci système éducatif bi muy njàng mi ak njàngale mi ak jafe-jafe yi mu yi mu yi mu àndal waaye waxtaan nañ fi itam ci nan la ñuy sàmmee bien public yi muy li nga xamante ni ñëpp a ko bokk te ñu war ko marché di sàmm am na juróom-ñetti jotaay yoo xam ne ay fatwa mooy ay laaje ki tontu am itam ay jotaay yoo xamante ni ay durus la yoo xam ne dafa war a dafa jëm ci ay tomb jàng ak jàngale yooyu itam waxtaan nañ ko fi muy pàcc bu njëkk bi loolu mi ngi tàmbali bu ñu sëlmalee tàkkusaan lay tàmbali ba waxtu ndog wi di jege waaye itam beneen pàcc bi ci des mooy lu jëm ci wàllu ndogo yi lu jëm ci wàllu ndogo yi dañoo seetlu na Touba du tàggali koog mbooloo jamono bu nekk rawatina ci biir weeru koor wi waxtu wu ne waxtu julli mi ngi fi am waxtu ziar nit ñi di jóge ay dëkk ak dëkk di fi ñëw di def seen ziar waxtu dog bu leen fi fekkee war naa mën a am euh, lu ñu mën a doge seen koor te du ñu am benn jafe-jafe nañ koy defee ca Makka ak Madina ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy jëwriñu sëriñ bi. kon nag lépp loo xamante ni dana am ca wetu yonent ba rafet na loolu mu am ci wetu jëwriñam jii di mu rasul loolu moo tax daayira muxaddamatul xidma ànd ak ay kilifa demoon ci Serigne Saliou mu jox leen ci ndigal ñu tàmbali ko ni ma ko waxee nag lépp loo xam ne jullit bi mën na cee dog kooram ci lu aju ci tàndarma café meew mburu ak yu ñu demee yooyu lañ fiy waajal ni ngeen ko gisee ci image yi ay mbooloo mu baree bari nag di fi doge si muy ay junni junni nit buñ ko xayma war na mat ñett junni nit ak juróom benn téeméer yoo xam ne ci xayma yi ñu mujj a def démb démb moom lañ constaté ne ñoo fiy dogee ndax danañ utiliser lu mat cinq 1500 baguette pain danañ ko jënd danañ utiliser 4 sacs sucre par bis danañ utiliser lu mat euh, euh, fukki tarmus ak ñaar ci jinjeer te thermos bu nekk 40 litres lay def loolu 480 la chiffre yooyu bu ñu ko xoolee ñi koy utiliser war na bu ñu nee ñetti junni nit yu tegal ci la ñu loolu xel war man war na ko mën a nangu te lool sax mooy estimation bi nga xamante ni moo gën a moo gën a ndaw bu ñu wax bu ñu waxee loolu nag xel yu bari dinañ dem ci ne koppar yooyu fan la war a jóge koppar yooyu mi ngi war a jógee ci jógewut fenn fu dul ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi ka ca jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général des mourides te ko yaan te ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér moo ci njëkk a dugal addiyaam jëkk cee dugal loxoom waaye itam njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp fekk si ko ci mbooleem taalibé murid yi fekk si ko ci moo xam opérateur économique yi ay liggéeykat ñi ay maçon ay commerçant ay ouvrier ñu mën a doon ñëpp dugal ci seen loxo euh, ñu ci sant bu baax a baax suñu représentant yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi muy sëriñ Baara Diop sëñ Moussa Mbaye sëñ Moustapha Gadiaga te ñu féetewu ci wet googu waaye itam suñu représentant yi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew muy sël daayira Muxaddamatul Xidma te sëriñ Assane Diop ak ñi mu ko àndal di ko coordonné kon addi euh, li ñuy defaree ndogu yi xaalis bi foofu rek lay jóge ci poosu murid yi ndax nag liggéeyub Serigne Touba ñun ni ñu ko gisee jumaa ji gannaaw Serigne bi ba mu koy ba mu koy defar malaaka yi mënoon nañ ko koo defaral jinne yi ñëwoon nañ sàkku defaral ko ko nu mu ko bëggee waaye téewul daf koo dénk njabootu euh, taalibe Serigne Touba yi ne nañ ci def seen loxo ku ne joxe ñaar fukk ak juróom-ñett doxin woowa rek la daayira Muxaddamatul Xidma jël ba tax liggéey bi da ko ubbi ngir bokk ak mbokki taalibe yëpp fu ne ci dëkk bi ci kilifa yi diine yeeg euh, mbokki talibe yi ku ne da ciy dugal loxoom ñuy gën a lancer appel di leen xamal ne liggéeyub Serigne Touba la boo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp ndax lu ne ku ne nga ci ndamul Serigne Touba mooy ndamul yoonu murit kon daal ci gàttal loolu lañ doon tënk ci liggéey bi di xam ne liggéey bu yaat la boo xam ne personnel bi koy liggéey mat nañ deux cent cinquante personnes yoo xamante ni neuf heures ci suba ba vingt trois heures ñi ngi fi séddalikoo ci ay commission yu bari commission communication comme nga xam ne ñooy tas xabaar yi waxtaan yi ñu fiy def ak mboolem yi fiy xew ñoom ñoo koy tasaare commission d'organisation nga xamante ni ñoom ñoo yor li ëpp ci liggéey bi ñoom ñoo ko yor waaye commission euh, sociale bi nga xamante ni ñooy def ndimbalante yi jokkalante ci biir daayira bi waaye commission bi nga xamante ni mooy commission culturelle te nga xamante ni ñoom ñoo yor lu jëm ci waxtaan yi ak commission finance bi nga xam ne ñoo dajale xaalis bi waaw kay ci atum 2018 bi mën a guñu wax bilan bi exact parce que ñi ngi déroulé pare ndax at euh, euh, bis bu set li ñuy war a utiliser àgg na ci euh, li ñuy consommer ci consommation parce que 900000 francs jege na ko kon loolu bu ñu paree tey mën naa yokk mën naa yokk ndax ba bis bu set mbooloo mi day gën a bari jamono bu ne mbooloo mi day gën a bari ndax ku nekk xam na ne xalif général des mourides fii lay woore ci kër Serigne Touba gi te mbooloo mu bari dañ fi ñëw ziar te ñooñu bu dog jotee dañuy ñëw ci jumaa ji ñëw def si fi seen ndogu kon mbooloo moom day yokk bilan bi day yokk waaye bu ñu tënkoo ci bilan daaw bi rek mën nañ wax ne 34 millions financé woon nañ ko daaw ci koor gi 34 millions yooyu nag consommation mi ngi ci ay budget de fonctionnement mi ngi ci lu jëm ci wàllu mboolem commission ku ci nekk dafa am budget bu mu ci def dafa am budget bu mu ci def waaye 34 euh, millions yooyu moom lañ financé woon daaw te ren jàpp nañ ne dana ko yokk ndax mbooloo mi fi ñëw ren ci bis yu njëkk yi euh, ëpp na mbooloo mi nga xam ne moo fi doon ñëw daaw ci bis yu mujj yi kon bu ñu doon xool budget bi danañ mën wax ne xëy na boo moytul dana àgg 40 millions ci doxin wi nii kon kaddu yi ñuy tëj daal mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital cant gi ak euh, ngërëm li ak ziar bi ak ñaanal gi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides ak mboolem njabootu Serigne Touba gi di leen sant bu baax a baax ci taxawaay yi ak ñaan yi waaye itam di sant mbooleem mbokki talib yi nga xam ne dugal nañ seen loxo seen xalaat seen participation moo xam ci xalaat la moo xam alal la moo xam doole la ci liggéey bi ba mu réussir waaye di gërëm itam membre daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne bu koor jotee dañuy bàyyi seen liggéey yëpp bàyyi seen yëpp ñëw ci jumaa nekk fi ngir fexe ba liggéey bi sotti te lenn jubluwuñ ko ci lu dul dab ngërëmul Serigne Touba ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu liggéey bi te dencal ñu ko te fulal ñu ko te jox tegal ñu ko ci loxol Cheikhul Khadim ñu def ko addee Serigne Touba wasalaamu aleykum wa wa barakaatu silta dayfan kariman zairan abadan مكرما بقرى الطاعات والسدد mel ni tam mbokk yi bis bi tey spécial la ndax kenn ci kilifa yi nga xam ne ni ñoo nekk Touba muy Serigne Cheikh Aliou Mbacke euh, ki nga xam ne moo yore wàllu maaw rahmati di ndoxum Touba moom itam ànd na ak euh, daayira bu takku délégation bu am solo ñëw fii ci jumaa ji indi addiyaam ñeel ndogo yi kon ñu ànd ak yéen ngeen dund doog ñun addi yu am solo yooyu ومضيفا لسوي الإحسان بالسبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen siyaara baax di leen ndokkeel yéen xamal ni ñu ngi fi ci jumaay Touba ànd ak Serigne Cheikh xam Serigne Aliou ci liggéey bi nga xam ni kuréelu ahlu jant bi bi nga xam ni moo lëkkale rajo jant bi auditeurs yi ak auditrices yi si ngeetal sunu baay Njaw Njaay mi nga xam ne moo jiite góor yàlla yi ak sunu yaay Kumba Jeng noo àndandoo tey ñëw fi ànd Serigne Cheikh si def sunu barkeelu si jumaa ji nga xam ne liggéey bi nga xam ne waa Muxaddamatul Xidma ni ngi koy taxawal fii si jumaa ji kuréel jant bi ànd tey seenu ñaq ñëw ànd sëriñ bi leen ko jëbal si ngir sunu waajur si xam sëriñ Afia Buso ak mboolem mbokk yi mu àndal yëpp leen di baax mbokk yi ñu àndal noonu di feeñee suñu yéene rek ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen liggéey sëñ Tuubaa fii ci jumaay Tuubaa ji muy kuréel bi nga xam ne moo lëkkale royo jant bi royo Serigne Cheikh mu sëñ Aliou mbokk yi àndandoo fu dëkk ñëw ànd ak yéen ci liggéey bu tedd bi di feeñee suñu yéene rek di barkeelu rek xam ni yéene ji ëppoon na lii waaye pas-pas bi moo ko mu ngeen koy pas-pas bi moo moo moo jiitu lii yéen xam ne daal yéen lu leen mën a nekk rek fas yéene ko ànd ak yéen góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi sunu waajur yi bàyyi njaw njaay nga xam ne comme ni ko sëriñ bi waxee léegi bokk suñu njabootu ak Alaaji Malick si jiital jiital mbooloo mi kon ni leen si ni ngi leen si siyaar baax baax di leen ndokkeel baax xam naa kàddu yi lu si ndëng rek si man mii nu yéexteewoo kàddu gi la waaye lu baax tey jub te rafet lan ma ma war koo wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw ba nu santee buur bi tabaraka wa taala ñuy julli ci yonent bi Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg bi nekk fii eh, ngeen nekk dëkkaaleem lu di sellal lool ci waxtu wu ne ci daayira bii nga xam ne mooy muxaddamatul xidma eh, ñoo ngi leen di siyaare bu baax ci shahru ramadan mubarak bi eh, di leen sant bu baax di leen jaajëfal ci seenu liggéey di ñaan ci darajey Sëñ Tuubaa lépp lu ngeen fi liggéey sunu borom ful ko tasaare ko ci réew mi réew mi am jàmm Sëriñ Tuubaa yaata yaataloon la yéen a ngi ci yaatal googa kon tey jii daayira euh, ahlu jant bi Ashaabul Plénière incha allah danañu bu ñu fi jógee sax danañ jilaat yeneen ay pexe ndax mu ëpp fi doole ndax noo ngi bëgg a yokk noo ngi bëgg yokk sunu réseau de euh, radiophonique incha allah te bu boobaa yaakaar naa ne danañ jëlaat yeneen matuwaay mu gën a yokk nga xam ne bu ñu fi ñëwee mbooloo lay doon moo xam ne danañ dem ba ca bunt ba incha allah loolu mooy suñu naal euh, waaye yéene ji rek la ñuy àggale di ko àggale waale ñoom ñëpp. leen sant nag yéen itam ci seen taxawaay guddi ak bëccëg lépp loo xam ne yéen a nga sëñ Tuubaa sàkku na ko soxla na ko woon yéen nga ca loola di ko wéyal te loola ñëpp la war ngir sëñ Tuubaa dafa bind bàyyi fi wax mag ña ñu dégg mu joxoñ ab joxoñ muy turaas bi joxoñ boobee nag ci ngeen ne guddi ci ngeen nekk bëccëg kon nag ñu ci mat a jàppale ngeen kon alhamdulilah yàlla baax na bi ñëwee fekk fi ndawal suñu wajur suñu sëriñ suñu lépp di sëriñ aboo moom Cheikh Mamadou Fadal Euh, mu ñu fekk fi moom itam ab yonentam kon alhamdulilah loolu noo ngi ci barkeelu euh, di ci sant suñu borom tabaraka wa taala di ñaan yàlla guddal seen fan euh, di ñaan yàlla yàggal fi mu Muntaxa Mbàkke ñu ànd ak moom di gën a mën a liggéey sëñ Tuubaa yàlla def na wér goo xam ne dañuy gën a mën a liggéey sëñ Tuubaa ñu ngi leen di sant bu baax bu baax a baax a baax di ñaan ci daraje Xaadimu Rasuul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 muy jumaay Cheikhul Khadim ji nga xam ne euh, ñëpp xam nañ li nga ci doon ak li la ci le di Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikhul Khadim euh, nga xam ko lool nag ci say jëf say wax say defin ak sa fonk goo ko fonk ak bàyyi goo ko bàyyi xel ci waxtu wu ne ci lépp luñ toll mel na ne ñun de bokk nga ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ gën ñeme. bokk nga ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ gën a miin ci barab bi itam waxtu wuñ la soxlaa lu mu guddi guddi guddi guddi danañu la jot waxtu woo yëgee suñu yitti lu mu metti metti metti metti da ñëw ànd ko ak moom loolu lañ ma sa xam ci yow te loolu lépp nag defoo ngir lenn lu may ngir Sëriñ Tuubaa yi ak fonk ko ak fonk barabam bi ak xam itam la mu jaraloon sama am ju tedd ja waxtu wam ko fi def ak fa jamono tolloon ak jafe-jafe yañ ko ci tegoon yëpp te mu bëtt ko ba def ndigalu Serigne Touba yi yitte joojee rek nga am ci barab bi moom nga ciy wone waxtu wu ne moom nga ciy feeñal waxtu wu ne kon yow la ñuy njëkk a sant ba noppi gis nañu ne itam liñ fi def ñor na lool jumtukaay yii nga am de yëpp boo weer ñëwee ñoom ñëpp da leen di jëmale fii luñ fi wax àdduna bépp di ko dégg di ko jaaree ci jumtukaay yooyu te gëm nañ ne itam soo amoon lu ko ëppit def ko ci lépp loo mas a nekk sa loxo itam buñ ko soxlaa muy ndox muy rajo yi muy jumtukaay yi xaral lay ak lépp lu mu mën a doon rek teg nga ko suñ disposition luñ ca soxla ñoo ko fi bàyyi te loolu defoo ko ngir suñuy jëm ngir jëmmi Sëñ Tuubaa moo tax nga def ko ak jëmmi barab bi kon yow mën nañoo seede ni barab bi ñor na la bu baax a baax a baax itteel na la bu baax a baax a baax yaa ngi itam ci lépp ci jamono ju ne kon jërëjëf Sëñ Tuubaa mi tax nga di ko def yàlla na la fayal boppam te sax gëm nañ ne dana la fayal boppam ndax fii moom la mu waxoon rek mooy la ci nekk ku ci feeñ feeñ ba faw ko ci sóolu sóolu ba faw yow nag yàlla dogal na bokk nga ci ñu ciy feeñ yàlla na si feeñ ji gën a jëm kaw ba faw incha allah ci barkeb sëriñ Tuubaa di sant itam sunu bokk yi sëriñ Njaw Njaay mi sëriñ Njaay mi ak sunu doom yi bopp ji di Cheikh Mouhamadou Lamine mi di sëriñ Baara Bousso ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal di ay góor ak ay jigéen te jëf ji ñu yàgg koo jëf lool njëkkul tey mel na ne ba ñu tàmbalee liggéey ba léegi ay benn benn kilo la tàmbalee woon di dox ba egsi fii mu egsi li nga wax léegi itam ñu ngi koy séentu te gëm nañ ne day masa ami dana dox ba ëpp fi fuuf ngir seen yéene àgg na ca seen pas-pas àgg na ca seenu taxaw itam àgg na ca waaye yow mi nekk ci seen kanam itam yaa ngi leen di joxañ yoon wi te joxañ bi nga leen di joxañ gëm nañ ne danañ ci jaar kon nag ñu ngi leen di sant bu baax lii rek la sëñ bi waxoon ci kuy tànn njit bu tànn njit loo xam ne yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada te loolu mooy li nga leen di wommate nii kon nag yàlla na yàgg lool ñoom itam ñi nangoo wommatu jëm ci lu baax nangoo wommatu jëm ci li maye ngërëmul yàlla ñoom itam ñi ngi di ñaanal ñu sax ci loola ba faw te suñu borom defal leen ci ndimbal te gàttandu leen ci yërmandeem sëriñ Tuubaa gàttandu leen ci itam ci tawfeex sëriñ Tuubaa ñi ngi sant bu baax di gërëm te di leen ñaanal ñu de bokk fi teewaat na gën a ànd ak nag di leen séentu kenn bañ a màngi ci barkeb Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa biha fi daari afidatan ya musiban nakadi kon mbokk yi leen di jaajëfal bu baax baax yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi ànd ak ñun ca ngoon ak léegi ci euh, istikhama point org ci euh, reportage spécial bi nga xam ne ni ñu leen ko jagleeloon fii ci jumaay ju mag ji ci fukki fan ak juróom ci weeru koor wi ngeen gis jëf ju am solo jooj ñu ko annoncé léegi muy Serigne Cheikh Alioune Mbacke di ku ràññeeku ci dëkk bu tedd bi di Touba ànd ak daayiraam indi jëf ji di jëf joo xam ne ni bi mu ñëwee itam waa daayira Muxaddamatul Xidma rafetlu nañ ko gannaaw loolu itam ni leen ko waxee léegi ki nga xam ne ni moo di Serigne Abdoulahi Diop bokk ci ñiy saytu wàllum euh, xidmatul xadim fii ci jumaay ji yëkkati na ay kaddu kaddu yi nag ñu mën cee jàngate Euh, euh, fonctionnement wala xidma bi nga xam ne nii waa daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy xidma fii ci jumaay ji rawatina nag taxaw mbokki taalib yi nga xam ne ni dañuy bàyyeekoo ci ay gox yu fasanti ko ngeen gis yi nii ci sun kanam ak sun gannaaw di waajal li nga xam ne nii moo di ndogal yi nga xam ne at mu jot mën nañ ne ay millions yi millions la jumaa ji dépensé bët bu set ngir Euh, mën a euh, jàppale mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañuy ñëw fi di ndogu euh, ci jumaa ji waaye xam ngeen ni ko mu Muxaddamatul Xidma di defee bët bu set ñu dalal ñenn ci ñi nga xam ne ni ñoo dëkk ci dëkk bi tey ji nag presse bi nga xam ne ni ñoo nekk diggante Mbàkke ak Touba ñoom lañu fas yéene dalal kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf wa zaidan kulla aamin ma nafuusu bihi min juudi muxnin karimin naafi'i sayidi muy de moom opération économique bi moom si jàpp ci ngir Sëñ Tuubaa yëmul tam ci commerçant yi rek am na ay mécanicien am na ay maçon am na ay bijoutier am am na ay entrepreneur am na xeetu xeetu liggéey bu nekk ci dëkk bi rek parce que yëf yi dañ koy yaatal doonul loo xam ne dañuy bañ mu xat kenn jàpp ni lii yëf yi commerçant yi wala yëfi ñi ñi am doole rek parce que nit ci ci deme muy demee liste bi yor naa ko am na ci dañ ci ñu joxe un million dañ gis ñu joxe cinq cent mille cent mille cinquante mille trois mille mille francs amul daal dara lu ñu xewal kenn lu waaye joxe ñu ñu nangul la ko bind ko bind ko bindee tam bu ñëwee dañ koy jox waa day mu xarmatu xit ñoom it ñooñu bu dikkee saytu bi ñu koy saytu saytu bu sell ndax lettre bi ñuy bind jox ko kii joxe un million moom la ñuy jox ci joxe téeméer wala nga jëfal jox ko diw ko agsi jox la ko su defee kooko joxal la ko muy lu leer nañu ñoom it euh, loolu yëpp bu dajee ci ci ñoom it wan nañ ñu gis nañu niñ koy doxale doon na doxalin wu leer nañ que bañ koy tàmbali ay ndogu lañ doon wax mel na ni yëf yi dem na ba weesu ay ndogu loolu loolu doon loo xam ne loo xam ne ñun luñ la lool ndax buñ demee ba gis jumaa ji lépp lu ci euh, aje sensé mu di ay làmp wala ay fil wala ay micro wala ci climatisé yi wala entretien jumaa ji lépp dem ba mu ciy dem loola ak cant lañ lañ ko def jéggi na loolu dem ba ci noddukat yeeg imaam yeeg ak jànkati kaamil yeeg lépp aju ci jumaa ji ba e, daaw sax yëg nañu dem na ba jéggi jumaa ji ba ba am ay jàkk yu bari ak li mu jàkk yu bari yoo xam ni mbir mi agsi na ci loolu nag day e, dafay wane li ñuy wax ne sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw yu kanam laam ndax mbir moo xam ne bañ koy soog a tàmbali 2005 e, xubu 2006 jamono sëñ Saaliwu ba bañ njëkkee tàmbali foog naa ni un million bi manqué woon te foog naa ni bu bu daaw bi bu boo juumul bu daaw bi quarante millions boo xoolee li ko manqué tuuti la waaw mel na ni kon nag toujours day day gën a jëm ci biir loolu ñu ñu ngi gën a soññ ñëpp daal di nga ni mbir mi xataluñ ko ñëpp ci ku bëgg a bokk ci yëf yi dugal ci loxo bu dee ci wàllu opérateur économique yi ak commerçant boo jokkoo Cheikh Bara Diop mi nga xam ne moo jiite folancé yi wala Moustapha Gadiaga mi sama wet wala man boo jokkoo ak ñoom loo ci joxe dana dañ ko indi fii teg ko ci ci ci loxol ñi ñu ngi sant nag ñi nga xam ne jàpp nañ ci te yàgg cee jàpp te te taw te tawuñ benn yoon ndax euh, am na ñoo xam ne bañ ko tàmbalee ba léegi mus ñoom manqué am na ci ñoo ñoo xam ne sax dañ koo sa saxalal at mu ne lañ joxe woon foog ñu waat ci dara ñooñu tam ñu ngi leen sant xam ne yëf yi daal euh, liggéeyal sëñ Tuubaa koo def sa bopp nga ko defal lu ci waaye def daal ñu ngi ñaan ci kàttanu sëriñ Tuubaa nga la nga la nga mën a ba def ko bu bu ne nga mën lu lu ko ëpp tey ñaan yàlla mu defal nu ak wér ak mucc ak fan mucc la ak wér ak wér la te defal ko bépp jullit di jaay Xaadimu Rasuul waaye li ñu njëkkee nooy mooy noo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa di gërëm sëriñ Tuubaa di ko sant bu baax a baax di sant yàlla it ci bi mu mayee fekke woon ko daaw ren itam ñu fekkee fekkewaat ko di ko ñaan mu may nun ñëpp ñu fekkewaat ko ak yu bëree bëri comme ni ko Moussa waxe liggéey bi moom eh, mi ngi jëm kanam ci sa borom ndax li ko waral mooy dañ cee amoon ñaanu ku baax Serigne Saliou Mbacke moo ne ko tàggu woon mu ñaanal nu ci ba noppi ne maa ngi ko ànd moo tax mu déparé woon ci bu manqué comme ni ko Moussa waxee ba léegi ñu ngi koy quarante quelques te lépp nag amul kun ci sas amul sas kenn ku ne loo ci def yaa am sa volonté bopp nga def ko ci ci nam la soobe waaye duñu wax kenn joxel na nga ci at mu nekk nam la jëm kon donc lu leer mooy ci lii itam dafay loo xam ne euh, day ñaari tawféex ndax ci weeru koor moom nit ku woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu dafa am lu suñu borom diggee ak payam moom suñu borom rek ko am ndax rawat na itam ñu di ko defee ci keppaaru Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne mi ngi yëg li muy def kon ñaari taw fen moo tax ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Sëriñ baax a baax di gërëm it nag suñu mbokki commerçant yi nga xam ne ñoo ngi ko ànd ak ñoom te bañ ko tàmbalee ba léegi te wóoluñu doyloo suñuy wax ba luñ leen ci wax ñu gëm kon noo ngi leen ci sant bu baax leen ci gërëm waaye nag sant gi lu baax la waaye lu ci waaye def sa bopp nga ko xam naa di gërëm it sëriñ Afe imam bi nga xam ne moo jiite daayira bi Muqaddimatul Xidma ak ñim ko àndal ñëpp di sine blaat bi si ñoom euh, ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax liggéey bu mel nii képp ku la ci boole Euh, sant ko lañ ko war ndax liggéeyal suñu borom la liggéeyal Serigne Touba liggéey ci jaami yàlla yi te suñu borom am liggéeyam a gaaw nga di ko liggéey ci jàmm bi kon daal noo ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin te di ñaan ñu teewee ko at yu bare bare bare te mu ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak wërsëgu dooleeku bañ gën koo jekku yal na ko yàlla def ci barke weeru koor حفظت بأخذ كتاب الله فيك هنا إلى ارتحال يوم السبت والأحد وسد بحبك حب ذات يا أمدي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا خش وأهلا وترحيبا بلا حدد